comme ni ma leen koy waxee rek surtout yéen jigéen ñi na ngeen bàyyi xel loolu ci ñi ngeen di déglu ci boo leen nekkee ci mu sëy ndax comme li ma leen koy waxee kiy sëy ak ku sëyul du benn ki sëyul mën ta jox conseil ki sëy ndaw si nag moom dafa am jëkkër jëkkër ji yor loolu lu mu soxla mu defal ko ko mu am xarit xarit bay di yëy nopp ndaw si naan ko sa jëkkër dafa bëgg jigéen day doxaan lu nee mu def ko ba proposé ko ni ko kaa ñu ànd dem ci sëriñ ndaw si topp ko ndax moom dafa bëgg jëkkëram yem ci moom rek te xamul sax li xew ndeysaan mu ànd ak moom dem ci sëriñ ba sëriñ bi jox ko sunguf ni ko boo ko defee sunguf si soo ko defee ni ma la ko waxee sa jë def ko ci sa lekku jëkkër sa jëkkër dina régler te dina la topp ah ndaw siit jël ko sunguf sa dem ci kër ga daal di togg nekkati ndaw sa nga xam ne mooy xaritam mu nga jàll ci suuf dem waxak jëkkër ja xamal ko ni ko sa jabar ji am na lu muy def ci lekk bi te dalaa fas yéene rey jabar ji nag togg ba pare yóbbu añ bi tegal ko jëkkëram jëkkër ji ni ko chéri dama bëggoon nga ñëw toog lekk man te nga eh, nga jëkk a lekk ndaw si ni ko luy loolu man añ naa ba pare di mu ne ko déedéet damaa bëgg nga ñëw toog lekk ba pare ma doog a lekk jabar ji di insisté bañ jëkkër ji génne paaka ni ko soo lekkul dama lay rey jabar ji ti tibb tibb bu rëy seq lekk daal di wadd ci suuf ca la jaare nag tàqalikoo ak sagoom dof complètement ba ba bëggee ay sagaram di daw ci mbedd bi gis nga ndaw su ko yóbbu woon ci sëriñ sëriñ ba di xaritam ndaw soosu moo wëlbatiku waat ñëw sëy ak jëkkëram mhm. nekk ak jëkkëram ay doomam bañ ndaw si bu baax ndax nee nañu kat ndaw si dafa bëggoon a rey seen baay kon nag bàyyee leen di jox nopp saiu.